asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réewum senegal ak bitim réew ñoo ngi amati mbegte ci ànd ngeen di ànd ak ñun tey jii nag ñu fas yéene ñëw ànd ak yenn ci suñu jataay bi nga xam ne baaxoon nañ ci di ànd ak yéen muy jataay bi nga xamante ne bii moom la ñu jagleel jaar-jaari mag ñu baax ñi di mag ñu sell ñi nga xamante ne bii liggéey nañu ci lislaam liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad liggéey boo xamante ne bii lu mat di fàttaliku la tey ji nag ñu ñëw tey ci benn penc ci penc Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba yi ñëw ci koo xam ne itam liggéeyal na Serigne Touba liggéey boo xam ne nii bu ràññiku la kooku mooy kan moom moo di Cheikh Issa Diène bokk ci mag ñi nga xam ne nii ñu liggéey lañu ci senegal ci Afrique waaye liggéey itam ci yoonu murit jëmm ju sell jooju nag la ñëw tey ngir gëstu ay jaar-jaaram nan la feeñee jamono danañ ci ànd ak kenn ci ak njabootam mu di Serigne Dame basa danañu wax nan la feeñee nan la ñëwee itam ci ku tedd ki di sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba kon ñu ànd ak yéen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, maa ngi leen di sant ci ñëw gi fi ñëw ci man dama laaj lu jëm ci sëriñ bi xam naa gàtt gi ak waxtu wi dana ma xaw a jaaxal lool ci mbetteel gi waaye moom waxtaanam jëm ci moom ci diggam ak sëriñ bi. lu jàppandi lay doon ndax wenn doxeen la amoon rek muy sëñ bi rek amul woon soxla ci lenn amul woon soxla ci kenn ku moom jamono ya nga xamante ni mu ngi waaj di ñëw ci moom it ay sabab la woon boobu ma ngay jàng ca dëkk bu ñuy wax cun mu dem ci ka nga xam ne moo doonoon di ko jàngal wax ko ne ko dafa bëgg werdu tijaan mu ne ko muy baayam di Mor Biraan mu ni ko nanga jàng mu dellooti ñaan ko ko mu ne ko nanga jàng mu jàng ba ëlwaam egg fekk na ci yooyu jamono nag boobu jàng na alxuraan ba noppi moom xam-xam la fa doon jàng si ba am bisu mu woo ko ko salaatul fatiha ni ko am na jigéen joo bàyyi ci sa kër am na fu mu toll soo amee doom doom ju góor lay doon na nga ko jox salaatul fatiha bii mu jarabu ko ab sëriñ dana feeñ ci penku dana fa dem ña fa daje ñëpp kenn du ko ci gën loolu sababas ba mu dil see tàggaar mu toog xam nga ba ci jamono boo amee xam-xam da nga daa jàngale mu jàngale ba ci teg ab jukki alxuraan teg ci kaw mbaa mu gént gis yont bi da ko nampal ba mu ne tëreet mu gis ab dënnam tooy xepp mu daal di jóg fekk moom boobu juddu na ba jàng na ba transport boobu ci lu gàtt rek mu daal jóg seeti ab xaritam ne ko damaa bëgg a dem seeti sëriñ bi muy dégg ci penku mu daal di dugg ci biir néeg bi daal di jël ñaari mbalaani cawali jox ko ne ko man jébbalu naa ci yow ñu ànd fii ci mbal gi lañu fekk sëñ bi mu nuyu ko fekk ko ci ak tóoj mu toog ci lu mel ni néegi pal yi wax ko li muy dox mun ko foo bàyyi ko mun ko ci réew ma fa ñuy wax tàggaar wax ko li muy dox mun ko tàllalal say loxo tàllal ay loxoom jébbalu mun ko kii de nee na maa ngi moom ànd daa bëgg mu jébbalu mun ko bool naa ko yow ci biir loolu mu daal di dem ànd ak moom mun ko man de damaa bëgg a liggéey mu ne ko da nga koo gën a jege ci fere mun ko sëñ Masamba jóg mu ne ko damaa bëgg boo demee nga def ne Masamba Diop di yónnee si mu ko bëgg a wax awma kenn ko ma yónni mun ko demal rek mu ne ko daal damaa bëgg ku ma bàyyi rek ma liggéey ndax liggéey rek la bëgg maanaam ba. ab tookarub jo xaal boo fa nekk mu rëdd ca ni ko bayal lii te bu ko weesu ba muy bay ba ca gob bu mujj ba sëñ Omar Gueye Anta Nguna Baye Xaadim Gueye ñoom ñii moom la sëñ bi ko demal kay bay mu jox la gob te te ne na kay wuyu ma ba mu ñëwee nee mu fekk ko mu yor daa ak xalima ak kayit laajaat ko sa ndey moom tudd sa baay moom tudd mu wax ko ko mu laajaat ko koo gën a jege mu sëñ Samba Diop mun ko demal def ni ñoom di yónnee jàmbatati ko bëgg a liggéeyal ko mu ne ko demal def na ko defar ba kenn du ko xam nee na ba fa jógee ba mu taraan dee si tàggaar gépp ruugu ko topp rek ànd naa ak ci biir farloom googu nag lépp lu ngeen dégg ni am na ko mbaa mi ngi ko doon wax mi ko sàkkoo ci sëriñ bi ci nangu koo liggéeyal nangu ko topp buguta jàng boo mu yoroon ba nga xam ne sax dañ ko daan fekk si di gàggandiku ci moom loolu sax amatu ca soxla li ma am soxla rek mooy sëñ bi ba bi mu demee ba nekk ci sëñ bi jóge fa mu demoon ca tukkeem ba ba ñëwaat njëriñ it suba ku xëyee ci àdduna rek dana xëy ci kër sëñ bi baraag bu ngeen fa gis moo ko daaj lal bu fa nekk moo ko fa def ba mujj seng yeeg néeg yeeg lu mu romb mën ko bul ko fàtte. nee na du woon dara lu dul jëf jëm fa doon jëf jëf jàkku naa bul ko fàtte kon nag bu ngeen demee ba ay gone dajaloo. seen xel nekk ci moom ba di ko sant di gàggandiku ci xool na mu doon doxee moom doxeen woo mooy déglu ko topp ko rek ci lépp loo xam ne lii lu mu bëgg la wala lu muy digle mu fas yéene kenn du ko ca man kenn du ko ca jiitu. dañuy faral di wax ne jumaay moom fes na ci loolu. jumaa yi njaareem sëriñ bi da koo santaane woote ko ñëpp daje. mu ni moom la teg liggéey bi ci ab loxoom ba ko ca tegee mu mel ni am na ñu ci ànd am na ñu ci àndut tax na liggéey bi taxaw juróom benn weer yoo xam ne tàmbaliwut ba yàgg mu woote waat waxaat la mu waxoon sëñ bi ni ko man de lii Mbàkke su fekkente ni sun borom la ko digal jaarale la ko ci yonte bi nga digal ma ko ma xam ko mun ko sama borom moo ko digal jaaraleel ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma digal la ko mun ko ku teema def ko dinaa la booleeg moom tabax keroog sëñ Baara nee na maa ngi ci mbooloo ma sëñ Mandu Mbay jóg dab ko ni ko ba ba mu tàggoo dem mu dab ko ni ko bu ma neeti Mbàkke de ma fafana te di ma jox ndigal ba ba liggéey bi egg moom la defoon secrétaire ci lépp ku sant Mbàkke di ci joxe dara sëñ Ballou Faly Dieng moo ŋàbboon liste bi ci des keneen kuy koo xam ne kii bokkoo moom ci waa këram foofa ngay loo joxe foofa lañ koy yóbbu ñu door liggéey ba moom ci yooyu jamono sëñ Bara nee na mi ngi téeméeri murit ak fanweer yoo xam ni yu am doole la nekk xabaan muy def bu ñu liggéeyee ba noppi mu jël la ñu bay ak lamu am da ko daan gas suul ci am néeg wacc fa ñu koy wattu ñoom ñu ñëw njaareem ci liggéey bi li ñuy joxe nag nga xam ni taalibe yi takkoo yi ñoo koy joxe ak li fi ñëw ñu ma la wax di indi ñu boole ko di ko liggéeyee ci noor bi ba nawet ba dara amatut mu dem solli liggéey booba ñu naan daa yor ay jënd yu joxub xaalis ak fekk déedéet <laughs> boo dencoon rek fàggoo ko nawet bi nga xay kenn du am loo ci indi ba liggéey bi musa taxaw ba mu eggee sëñ bi war a dem ci jàkka ja du woon nag ajjuma bisub it lawoon mu woo leen sëñ Ba nee ne sëñ bi day waaj dem ci jàkka ji bu subaa mu bëgg bu génnee nag na fekk sama wate bii ci bunt bi moom laa bëgg mu demee ko nee na ca njël ba nu ñëwee ci penc bi waxuma la dem ci bunt kër ba waaye penc mi donc foofu yi dugg ak oto jaxal nanu a fekk nee na waajal nañ ko jëlee nañu kajoor ñaar téeméeri nit yoo xam ni ñu am kattan lañu ci taalibe Takko yi dongo yi itam booba téeméer ak fanweer yooyu ma la wax ñoom kattan lañu ak saalum saalum si nga xam ne itam maanaam foofu jël nañ fa lu mat téeméer ak juróom-ñaar fukk yoo xam ne am kattan lañu fu ne ñu wutal la jawriñ an bi ñëwee ba ci penc bi ba nu jaaxle itam ñu daal di séddale jawriñ yooyu daal di wër oto bi euh, Ibra moo ko yor mu ñëwee arrière oto bu ñu egg rek bu la songee rek doole lañ lay jëlee dem ak yow boor oto bii ñëw ba ba asamaan di set ñu egg ci buntu kër bi ñaari wata dese leen. oto yooyu nag di ay watay kilifaam ndax booba oto sëñ Modou Moustapha la ak wat Cheikh Anta ah yi wata day ñu diisoo ak sëñ Baara mi ñu àndalan ak sëñ Moussa Rock muy seen jawriñ ñu ne ñii suñuy kilifa lañ seen oto ban ko teelee laal li nu bëgg duñ ko am ñaan leen di waajal rek noonu moo la ko waxee rek lu mat téeméeri nit ak nangam buux buux loo rang ci seen ginnaaw ba def samp ñeenti sàppe nii tiim ñi nga xëy dañoo laxasaay ñoom tiim oto bi xam naa loolu la leen seen xel may booba waaye ñaari oto yëpp dañ leen tiim kenn ku ne laxasaay tiim ko ñoom ñu ñëw wër leen nag jàkk ne ci seen gannaaw fee ca kanam it ñu sol ñu dem fa bux mu xumb loolu am fa ñeenti rang ci kanam kanam mbedd mi nga xëy nii la ak nii njëkk ba yàgg suñu saa génn ci biir kër gi taxaw ci biti daal di duggaat na ko mu duggaat rek. ñii waroon wa rek ku ne am ponkal la ngëb rek tey sànni la ci sa gannaaw keneen jël la ñu jàlle la ñaari wëlbatiku ñoom oto bi da boole ñaari oto yëpp demandoog moom boor oto bi ñëw sa cheng bi ñu daal di wëlbatiku puus oto yi jàkkaarloog nit ñi nag diir bu gàtt rek sëñ bu génn ñëpp daal di sukk fi suuf kenn ñi mu ko xool mu génn taxaw ni instant ndax ay demukaay am na fi mu loolu kenn waajalu ko maanaam ay daal te moom <laughs> daal si gisaay foofu mu xaw a jaaxle ku ñuy wax ndongo faal daan daal alxuraan fii ci Daaru Rahmaan ko suñu latif fekk ba mu jógee ca daara xabaan ja jaar kër Morel Porom jënd fa ay dàll yu mukkeel def ko ci ay posa waaye solugu ko mu tekki la saa jël wenn ñëw daal di sukk sëñ Saani ko man de amoon na yu ma jëndan fekk mu waaye solugu ma mu anam mu tekki jox ko mu daal ci dugal loxoom teg ci kanam sëñ bi mu daal di ràppi dàll yi mu sonn daal di sol mu yem ca kepp mu daan ne isaa fabal yooyu jox ko ndongo li la ko joxoon bu yàggutoo faatu biñ kër Abdou Saloum ko solo dàll yëf yi nga ne kon mbirum sëñ bi moom sun borom moo koy taw feexale nit bi mu duggee ci biir oto bi toogut ci kaw photo yi dafa toog ci diggante ñaari coussin yi sëñ Isaa fëggal ko photo bi wuyuwu ko ku ko xamoon la mu daal koy ubbal bunt bi daal di gaaw waaxu dem ci kanam oto bi mbooloo moom la doon wax daal koy wër ñu ànd moom ba penku jumaa ja ba muy dugg ca biir nag sëñ saa jiitu mu topp ci ba ba mu yéeg escalier bi mu taxaw woo sëñ baa ne ko mat Lamin mu ko mun ko waxal fere yi ñoom buñ julli moom boobu bëggam genn la na sëñ bi dellu ci oto bi rek ñoom it ñu xam la ñu xam daal di oto bi toog mu ànd moom dugg ci bi jox ba ñu génn ñu wut jumaa ji ca kër ga sëñ Isaa génnee ni leen lépp lu ngeen doon sàkku ci man am ngeen ko lu ngeen doon sàkku ci moom it am ngeen ko ñu toog ab diir xam nga mbirum murit ci bu leen julli jooju ñuy ñëwaat suñu saa woo leen leen sëñ Tuubaa nen bu leen roy Ibra Faal bu leen ko diingat li wax bu baax bu leen ko roy bu ngeen ko bu leen ko diingat man fa ma ko san saanu nax kon lépp lu ngeen gis mu di ko def bu leen ko ca diingat waaye bu leen ko ca topp nag topp leen ci liinu sëñ bi digal rek muy siraatal mustaqim julli wax ci juróom ci leen ko sut moroom digale kon sëñ bi moom aw doxinam noonu rek la woon lu mu xam ne sëñ bi bëgg na ko rek xam nga sëñ Mor Kayre mas naa ñëw ci moom ànd ak sëñ Moussa Ka ñoom ay bis njànne ci seenu baax kenn ku leen di wax li mu xam ci diggam ak sëñ bi ba ñu eggalee loolu da ko téye denc ko ba bis na tey kenn gisu ko biñ ko laajee li tax mën naa la wax loolu lépp waaye mën daal. bàyyi gi nga xam ni ñi ma topp ci man buñ ko gisee danañ ko bàyyi liggéeyub sëñ bi topp ci loolu rek musiba la li muy bëgg moom ci ni ma la waxee ci njaar mi lépp sëñ bi rek loolaa ko ñor bàyyi gi ñuy bàyyi liggéeyub sëñ bi mooy xasaa itam yi di topp lii nga xam ni lii moom la ñii di wax ci moom ci diggam ak sëñ bi ba tax ñu gannaawal lale loolu la ci doon daw dafa dem ba mujj mu woo sëñ Ba ne ko bu demee ba xaaju guddi na ko gas ba ci sa conco nga sol ko ci néeg bi ndax bugguma fere yi gis ko mu gën leen a yitteel liggéeyub sëñ bi kon xam nga kooku fa mu teg sëñ bi fu kawe la kon yéen ñi nga xam ne da ngeen a dajaloo itam ngir di ko fàttaliku di ko defal ak cant mu mel ne ngeen bàyyi xel ni doxinam woow rek la woon liggéeyal sëñ bi topp ndigalam bàyyi ak tereem képp ku mu àndaloon loolu la doon digal. daan dégg tamit ay may yu bari yoo xam ne suñ borom jagleel na ko rawatina sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba ba ci mbooloo moo xam ne sax xëy na eh, mën nañoo bañ a nekk ay doomu aadama xëy na laaj bu xaw a xóot la waaye looñ ci mën a mosal tuuti rek mbooloo moo xam ne sax wax nañ ne duñ neex a gis daal. waaw la ci daal am na saayir la am lépp ci sëñ bi rek dafa day waar daal. sax ay eh, faju aajo yoo xam ne bu ko daan def ci nit eh, danay liggéeyloo rek maanaam la nga bëgg nga am. waaw am na ci loolu ku mas a dem ba tële ci sa kër. danga nga daan ñëw boo ko jàmbatee doon la jox saafara da lay wax demal ca daara ja wala nga toog ci kër gi boo xëyee. liggéey ba gën a jàpp ni nga di ko def ba yàgg rek loola nga yëg ni dañ na ci yow ama dam jóge sax am na anam gu mu joxe ci waa këram ba nu nga moo leen jur ngir ñu di ko dimbalee ñi loolu dal jàpp naa ni koo dem ci doomam ñakkul mu mën la koo fajal te du la ca laaj dara waaw loolu moom loo ca joxe yaa ko joxe waaye du la ne jox ma nangam ndax daa bu la ne jox ma benn dërëm rek du la mën a faj yow boo ko joxee loo xam ne lii du àqe loola it mën naa wàcc ci moom moom mi nga xëy na mu mën naa faj te du joxe saafara moom loolu moo ko mënoon loolu mbiram waaw li mu fi bàyyi daal lu ñuy bind la. <laughs> dégg nañ tamit digganteem ak njabootu sëñ Touba jëflante bu rafet bi rawatina niñ ko doyloo woon. waaw xam nga ñooñu nag dañoo baax ba nga xam ni euh, ku ku ñu daan gis fi seen wetu wuy sax dañ koy jàppe ni wuy jur yu demee noonu waaye moom lam doon xool ci ñoom rek mooy jëmmi sëriñ bi waaw nee na sëñ Modou Moustapha ko war a mose a yónnee. woolu ne ko ne ko wucc te ànd ak mat faal càlle nee na ba ñëw na fekk ko Daaru Xudoos teraanga jële mu teral na ko ba nuy dem mu yëkkati oto bees peq boo xam ne bi amulum numéro may ko sëñ baar ah lii de mbàkki ko yóbbu moom wax dëgg daal mu ko yóbbu am lu ma la ci fàggul mu ko loolu ñëme mu xanaa damay dem tàggoo ci kon ba am ci ndigal mu jox ko am ambulance bi kayit yi nekk ak caabi ji ne ko yóbbaale ko ñëw ci foto bi ba ñëwee ba ci moom mu guddi ñu fanaan ci suba ñu xëy si ko mu xabaar ko seenu yoon ba egg ci ne ko sax mu ne jox na ko oto fekk mat faa lay wax mu doonoon loxo sëñ bi mu ne ana wata ba mu ne ko mu ne ma nga fa nee ma ndax mat faal xam nga oto boobu lu muy jar nee ne ko ndax romb daa mel ni ba ma ko rombee Ndakaaru ci seen gaaraas de juróomi junni la fay jar booba ci yooyu jamono juróomi junni man laa mel yor nga juróomi junni man ko ah diit man nag yoruma juróomi junni dama demal ni mu indi ko man yëpp ca mottali ko ba mat juróomi junni ngeen jëlaat sama oto boobu dellu ca moom ne ko loolu yi mu def daal rëy na fi noonu jëf la joo nga xam ne ji kenn mësuñu koo jëfal mel na ne nag war nañ ko ba mu xar ci sunuy loxo waaye foofu yi moom dañ fee miin a indi waaye nu fee jëlee waaye nag dafa mel ni dañu ko jariñoo ba mu xarat loxo ngir mbégte mun ci am mu boole oto ba nag ak juróomi junni yooyu nga xam ne lay ci gaas ba jox ko ne ko dañ fee miin a indi nu fee jële li nu soxla ci yow daal mooy ak ñaan rek xalaas mu daal leen di ñaanal ñu dellu si daal noonu la yooyu mbir deme woon <laughs> ci diggam ñooñu ña ci des itam nag ginnaaw sëñ bi moom mën naa ne la musta seeti kenn da doon def daal la muy def foofa la koy defe ku njëkk fi moom ci ku sëñ bi ju rek la mu am mu jox la ko waaw ndax nee dafa bëgg seen baay ba am ci sago loolu daal moom la nekkee woon ba mujj sëñ Maodo Moussa ñëw fa ganesi ko mu ne ko ñun day seen baay danoo yafal ba bu doon mala ndox day taa ci suma gannaaw ku nu teg sëf sëf foo bëgg nu yóbbu la ko ku nu bàyyi sunu euh, ginnaaw gu sàddit nu sant la ca ko sante woon càmm loolu ci Taïf bu bari la dëgg dégg naa su ma neen na am nañ fa ñetti fan ràbb sàq yi semb ko def ko na mu ko bëggee woon mu yabal sëñ Baara ak sëñ Bachiru ak sëñ Mbàkke ni leen ngeen dem santal ma ko ne ko lépp lu ma sant rek lu ma ca mën dinaa ko def ngir bàyyam ci noonu la doon jëf jëflante ak moom sëñ Fall moom dafa taxawoon ak moom ba saabu na da daan jógee Madina di ñëw di fa am ayug bis ci kër gi waaw ba xamoon na seen diggante. daan nañ bindante ay bataax. waaw yu bari sax ba léegi yooyaa ngi wëndeelu ci kër gi sax hmm, gis naa ko fu hmm, photocopie ko sax di ko yor ba. man bokk naa sax ci ñu doon gàntal loolu ndax secret jàmbur kenn waru koo photocopie di ko tasaare te moom barkeeloo lettre ba taxoon daw ko xotti mu mel ne kon bu njaboot bu sew di dikkee ginnaaw bi di ko photocopie di ko wone loolu rafetlu wu ma ko man bokk naa ci ñi ko gàntu lool sax am na jolu secret jàmbur loolu kenn waru siwal <laughs> kàddu koy tëjee rek balaa ñoo jël waxtu lu bari ci yow. Ah. kàddu yi nga koy tëjee rek. waaw mooy sant ak ngërëm rek ak fàttaliku mag ña ndax lu ñu am rek ci liggéey lañ ko am sëñ Baara mi doonoon ab taawam euh, booba ñetti doom yu mag la sëñ bi muy sëñ muy sëñ Baara sëñ Bachiru topp ci ak sëñ Mbàkke mu jox leen Abdou Gaye ca Ngaabu mu di leen jàngal mu jël ab taawam may ko Abdou Gaye moo jur Souley Gaye muy jiite daara kaamil bu njaarim muy jàngal ñooñu ba yàgg moom ni Cheikh Amadou mel ni am xelam daa mel ni sama mos xaw a naqari mu daal di koy jël yóbbu ko xabaan woo dong yëpp ni leen dama bëgg mu liggéey te képp koo xam ne defle nga ko dara mbaa mu dox nga mbaa nga doxali ko yónneen te lii ma koy defloo noppiwu ci li nga fi wut yàlla boo kam ne dañ ma doon daw ni jaan ba am bi sëñ Tuubaa yónnee woolu ko mu ñëw nee na dawal jàpp dafa am soldat dañ maa teeru si ma ñëw mu ne ma gërëm na la ma gërëm la sa baay gërëm na mu am bisit mu tàngal ab baraada boo xam ne bi da koo samal sëñ bi kenn daw ko defal moo dem leem matum njalemaan ba ba mu kii mu jël cuuraay sotti ci biir taal ko fa bu njëm dem sama fa di ca dem ak ñëw moom mu sukk mook saaliwuloo nee na moo samal ba ba mu ñor mu jël suukar di sotti jël bant di ko yëngal ba boo ko yëkkat boo ko yëkkatee ni mu la di ko mu mu fa banaada ba jox ko ne ko man Lamine am naan ko yow ma di murit nee na ba mu ko naanee ba noppi da ko ni ñëwal ma defal la njëriñal alxuraan walif nga ne ci téere bi di nar nëri lu mu la mës a defal ci alxuraan ni bal la mel léeg-léeg mu lay laaj sax fu mu ne ci alxuraan kon ànd ak sëñ bi rek la am solo jërë ngeen jëf. mbokk yi ba tey ñu desandi ak yéen ci gëstu bi ñu leen jagleel. jëm ci Cheikh Issa Diène waaye xam ngeen ne euh, kuréel gi nga xamante ne bii moo lëkkale itam ay sëtam at mu jot mu am bis bu am solo boo xam ne dañ ko ci fàttaliw mu di ak faat Cheikh euh, Issa Diène euh, ba tey nag ci kaw loolu daañu ñëw nag ndax loo xamante ne bii ñu bëri umpale nañ ko moom Cheikh Issa bokk na ci liggéey bi mu defal suñu borom defal ko Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba moo di ay dëkk yu bari yoo xam ne sanc na ko daan fa jàngale njàngaleem Serigne Touba ni ñuy yaree waaye ni nga xamante ne bi noonu la ñu daan tarbiya waaye liggéey boobu ñu doon wax ci jumaa njaareem sax bokk na ci mbay moo xam ne daana ko bay di ko ci def loolu lépp ci dëkk yi nga xamante ne bi moom la sanc ci la tukkee ba tax na du ñu def rek lu dul jébbal kàddu gi ki nga xamante ne bi moom moo di Serigne Moussa jenn waaye nekk kenn ci njabootu Serigne Mbacke Marème sëñ Mbacke Marème nag mi ngi cosaanoo itam ci Serigne Baara Jenn mi nga xam ne moo njëkk a wutu Cheikh Issa ci kaw suuf. aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara yi Cheikh Sidi Mokhtar xalif général de Mouride di ñaan yàlla yàggal ko te may ko wér. te guddal aw fanam ba li mu liggéey ci yoonu Serigne Touba yi lépp mu liggéey ko ci sagoom di ziyaara it di ñaanal xalifa Cheikh Issa jenn di sëriñ Cheikh Abdou Latif Diène mi nga xam ne moo ko fi nekkal yàlla mooy ko gudd fan te may ko wér te mooy ko mboolem rakkam ak doomam ak sët yi topp ci ginnaawam yëpp ak seex yi nga xam ne ñoo àndoon ak seen maam ñoo àndoon ak Cheikh Issa ñu ñaan yàlla tawféexal leen bañ fi ñu bëgg a àggale liggéey bi ñu àggale ko fa laaj laaj boo xam ne it sawar naa ci tontu ci lool mooy pëstéefu Cheikh Issa Diène ci wàllu sanc ay dëkk ak yar taalibe yi ci euh, wàllu tarbiya ak yoonu murit waaw loolu Cheikh Issa def na ci ay jéego yu mag ndax ni ko sëñ bi nit lee léegi dafa nittali taarixam fi mu gënee jamono fële ci Kajoor dëkk bu ñuy wax Cëli nittali na ko ba agsi ci ni mu toppee Sëriñ Tuubaa ba dugg tuuti ci jumaay njaareem waaye bala bala ñoo wax jumaay njaareem fokk ñu wax sanc ay dëkk ndax ku ne xam na ni jumaa ku koy liggéey ci wërsëg nga koy liggéey te ci jamono yooyu wërsëg wi ñu gën a na miin ci liggéey jumaa wala réalisation yu mel noonu ñi ngi ko doon defee ci wàllu mbay loola taxoon nag Seex Isaa radiyallaahu anhu bi mu jógee ci Sëriñ Tuubaa te nekkoon wàllu kajoor dem ba yàgg kajoor mel ni lu xat ci moom mu randu si tuuti ci soow bi ci côté ndànd ba foofa xatee ci moom dafa daal di jóge foofu ñëw ci wàllu Cees muy dëkk bu ñuy wax xabaan xabaan fii la Cheikh Saliou Mbacke dem ba fekk leen fa moog sëñ Mandoumbe moog sëñ Mandoumbe xaabaan ñoom ñoo fa jiitu euh, ci la fa sëñ Saliou Mbacke doo ko jógee fekk leen fe ñu demee wax nañ ne li ëpp ci lim doon liggéeyee jumaay njaareem ji ànd kook yoonu murit wépp moom lim ci fàggoon li ci foofu la ko doon fàggoo am nañu wax ni téeméeri nit ak fanweer ak ñett mag ñi jalaxu lañ ko daan tënkee muy téeméeri nit ak fanweer ak ñett yoo xam ni ay mag lañu woon doon ay kilifa te ci ëpp jàngoon alxuraan ba mënoon ka xamoon it seeni farata ñoo ñëw ko jikkoon a topp la ëpp ci la fa daan ñore it daf ko daan jël di ko yot Serigne Touba wax nañ ne bi mu nekkee ci yéen jolof fukki nit ak juróom la la wutoon yoo xam ne daf daan daaj ay kees di rey ay ñam di ko defar ba mu baax di ko yan ñuy fekki sëriñ bi fële ci jolof di ko yóbbu la sababoon loolu it muy mu jënd sëriñ bi gan ñi di ko jóge fu ne ci wàllu gànnaar ci fu nekk ci Afrique ñëw di ko seet am na ñoo xam ni dañuy dem ba gàkk ci xam-xam ñëw. yëg ni xutbub samaan bi nga xam ne wala xutbul xawsu bi nga xam ne mooy war a xettali nit ñi tëdd leen wan aw yoon feeñ na ci jamono ñu def seen listaxaar gis ni fii ci Sénégal la ñu jóg ko seet am ñoo xam ne masalay fiqa fiq yu xóot ci lañ dem ba gàkk ci wala ci tasawuf ñu yëg ni kóot laay yenent bi ci kaw suuf feeñ na te fii ci Sénégal la feeñ ñu ñëw di ko seet si te ñooñu ku ne xam na ni bu ñëwee di ko seet ak ngan gu am solo lay laaj Cheikh Issa nag amoon xel ak yewate gu toll ni fekk si Serigne Touba ci ngan googa wóotu ko fa moo tax sax dégg nga sëñ Moussa Ka ku weddi lii demal la gan Aïssa di mbër moo mënu gan yaaram la wuute naag sa gan bambaa ko ñàkk ci xarnu bi wuute wuute naag sa gan yooyu wax na ni giirug saggaani goo xam ne ña nga nekkoon ci Mauritanie nekkan giir gu xawoon na sàggan lool na ma yàlla baal mu ni Cheikh Issa wuute na ak ñooña ndax ci jamono yooyu moom li mu gànjoo woon mooy eh, defar ak ay ay xéwal ba mu yemb mu yet ko ay nit ñu yóbbu te wax nañ fukki nit ak juróom yooyu bu ñu demee ba àgg suñuy wiññikuwaat ba toll ci xaajal bi dañuy dajee fukki nit yoo xam ne dañuy dem yenu juyaloo ak ñoom euh, defe naa sax sëñ Ibrahima Diop almachari wala sëñ Mor Jooja comme ci mën a doon tagg na ko it ci bëy waaye moom ci arab la ko waxee sëñ Musaa Ka dafa woyee ci olof moom woyee ci moom dafa wax ni rabbul jifaani lazi daban xadim talaat bi laxmi wal urzi wal axbaasi wal desami moom mooy borom bagaan yi nga xam ne naka jekk daf ko doon feesal bi mi ci ndawal wala ursi ak ceeb wala axbaas ak xeetu mburu wa dasami ak garis mën nga wax diwu ñor mën nga wax lu la neex yooyu yëpp daf ko doon fàggu di yóbbul Serigne Touba di ko fekk ci ci yéen jolof ba tey tamit bi mu demee ba xabaan googu mel ni luy tàmbali xat dafa daal di rocceeku dikk defe naa soriwul 1914 la ñu wax noonu ci côté Daaru Jenn géngi neew foofu la Cheikh Abdou Salaam Jenn nekk te yal na yàlla guddal aw fanam te sàmm ko ba mu demee foofa am na fa ab diir ci lu a ñëwee njëna lagan sanc ko jenn Lagane nag suñ ko waxee ab dëkk mooy dëkk bi nga xam ne mooy xol bi waaye aw tund la ndax defe naa ni fukki dëkk wala ñaar fukki dëkk wër na ko yoo xam ne dëkk bu ci nekk ña fa nekk ñëpp jenn la ñuy wuyoo dooma moo fay nekk wala ab sëtam wala kenn ci ay seexam defe naa sax gëstukat yi nga xam ne nekk nañ ci yoonu murit ci colloque yi ñuy def wala euh, forum yi ñuy def di ko jiital ci waajtaayu màggal ñoom seen gëstu yi ñu mujjoon a def gis nañu ne yoonu murit ak décentralisation gis nañu juróomi téeméeri dëkk ak juróom fukk wala juróom benn fukk yu topp loolu nag dañ koo séddalewaat seexi sëriñ Tuubaa ak doomi boppam yi ak sëtam yi kenn ku ci nekk la nga gor yaak sa mbooloo waaye gis nañu ne bi ñu ko defee noonu Cheikh saa Diène moo jël majorité loolu nag ku ne xam na ni pësteef bu mag la pësteef bu mag la euh, loolu kon dina firndeel ak nangoo liggéeyam waaye ak liggéey bi yëpp yi tëréwul maanaam xawaayidu charan yi nga xam ni mooy baasub jullit maanaam ci nit ki jàng ba xam diine islaamam jàng ba xam nan lay war a nekkee ak euh, mbokki jullitam yooyu yëpp daf ko boole woon ci biir liggéey bi nga xam ne naka jekk fu daara mos a nekk di jël borom xam-xam boo xam ne dafay féete ci côté boobu di jàngal nit ñi mën naa ne ku ñuy wax sëriñ Moussa Gueye Kaang ñi ëpp ci njabootu Cheikh Issa ba ci Cheikh Abdou Latif jenn mii fi nekk yal na yàlla yokk leer yal na yàlla yokk aw fanam te may ko ak wér ak lu bari ci ay rakam ci sëñ musaa Gueye moom lañ jàngee alxuraanul karim Cheikh Issa mujj na ci wóolu gi mu ko wóolu ak alxuraanam ju rafet yëkkati doom ju jigéen ji wax soxna Magat Jolof jox ko ko mu nekk soxnaam ba tey ay sëtam ñi ci biir kër gi kon loolu wane na ne it lim doon fu lépp ci liggéeyal Serigne Touba ak ci wàllu mbay ak ci faggu ay addiya di terale gani Serigne Touba ak faggu ay addiya di dugal ci sànceb jumaa yi njëreem ji terewul woon euh, mu jëlul woon ginnaaw charia al islam yi bi nga xam ni mooy baasu jullit maanaam nga xam ni lépp dañ ko doon boole ci tënku ci ndigal yàlla yi ak moytandiku ci ay tereem wax nañu ci njëriñ lagan ci atam yu mujj daf daan woo ku ñuy wax Baye Mayacine Seck yenn saa yi da ko daan woolu ni ko wëral ma dëkk bi waxal mbooloo mi nee leen Cheikh Issa nee na na ngeen di jàpp ba sell di sangu farata di julli julli juróom tey moytandiku li suñ borom di tere képp koo xam ne li suñ borom di tere mënuloo koo bàyyi mënoo tënku ci li muy digle nga abal ma borne bi. xam nga loolu nag ak dogu gu mat la ci ni moom ab jàngalekat la ab éducateur la woon boo xam ni fekke woon na njàngalem Serigne Touba te njàngalem Serigne Touba moom musu koo desal ci lépp lu muy def wala lu muy wax. daanako ko boole it ci ay ndénkaaneem nit ku ubbeeku la woon it koo xam ni mësta jàpp ay nitam nii rek tënk leen ci boppam wan leen boppam kese kese kese kese waaye dafa bëggoon fu lu baax nekk ñu mën koo xeeñtu waaye boole ko akuk nite boole ko ak yar ak teggin ku ñuy wax Serigne Cheikh Ndiaye ci dongo yi nekkoon ci moom njëna lagan la mos naa faa dem di ko di gëstu ci moom ci Cheikh Issa ak lu ci xam mu ni ma moom de bi ko Cheikh saa di wàcc ci daara ji daf ko wax ni ko sas wi nga yore woon muy tërbiyewu gi mat na waaye tool bi jeexagul tool bi mooy islaam ji kon boo jógee fii nga doon tërbiyewoo boo delloo ci say bokk na nga sax ci ndigali suñu borom yi tey mooy ay tereem waaye foo gis ko baax na nga ko teral na nga roy ci yamb ndax yamb bi ko sun borom enkewalee dafa dugg ci garab yi ak ci tooli dër yi fenn fu nekk mu far fa ay tóortóor waaye gis nga bi mu ko dajalee fa mu koy denc ku fa dugal sa loxo rawal sawar ko faa delloo waaw xaarabuka ila naxli an ittaxisi min aljibaali buyutan wa min alshajari wa mimma yaarichuun suma kulli min kulli thamaraati fasluki subula rabbiki zulalan yaxruju min butuniha sharabun muxtalifun alwaanu fiihi shifaun linnaas inna fi dalika la ayatan li xawmi yatafakkarun kon xam nga kooku ku déggan alquranul karim la ndax day jël verset alquranul karim mën na bañ a tudd aaya ba waaye day seet li aaya bi di jariñ mu fexe ba def ko ci ab taalibeem kon Cheikh Issa nit la koo xam ne ku amoon xam-xamu la amul lenn yëpp loo xam ne daf ko daan def ci yoonu Serigne Touba yi teg ko ci kaw làmbatu loolaa taxoon mu nekk nit ko amu fit koo xam ne dara mus na nekk ci kanamam lu dul Serigne Touba keneen ku dul Serigne Touba it benn gis-gis rek la amoon ci yow benn nga nekk wala rem wala nga nekk mu bokkum jullitam wala nga nekk ab taalibe boo xam ne ñoo bokk fu ñu aju waaye Serigne Touba rek moo mos a nekkub sëriñam ca loola la dem ca loola la dem ca loola dem ba mujj Serigne gërëm na ko ngërëm lu nekk am na ci ngërëm yoo xam ne bi mu ko koy gërëm wax képp doyu ko ci waaye da koo bind bàyyi ko fi te archives fi mi ngi ñu yor am na ci boo xam ne dafa jël aaye mubaayaan yi nekk ci alxuraan xam naa lépp ci aaye mubaayaan yi dajalewu ko man gis naa leetar bi waaye ci ëpp dajale na ko doon ko xamal ni ko sa borom subhaanahu wa taala jaayante gi nga jaayanteeg man de nangu na ko te liy firndeel ne nangu na jaayante gi jox na la ci kado ñeenti téeméeri may ak ñeent fukki may ak ñeent yoo xam ni góor yàlla bu njëkk ak mujj kenn mus cee gis may ga sàkkaam ak di ko mën a am te loolu li ci gën a yéeme boo seetee adadu Isa jenn mook 444 euh, yooyu mu ko wax ci ay may ñoo tolloo képp waaw te nee na ko may yooyu doo taqali ko moom bilaa salabin la ca teg loola it point bu mat taxaw seetlu ndax aduna dafa guddub tànk te doomu aadama bari pexe tey jii dees na samp dara fi barab waaye bu amul garantie mën nañoo dem ba yàgg pexe duggaat ci biir loolu jëlee ko waaye ñu yëg moom lépp lu ko Serigne Touba defal garantie la ko ci defal boo xam ne ba muy faatu du teqali koog moom euh, incha allah loolu bokk na ci ndam yi nga xam may na ko ko am na ci yoo xam ne day xaw a xóot waaye am nañ ci yeneen xissa yoo xam ne bi mu ko koy wax sax dafa wut ñu ko fekkee am na ci xissa boo xam ne sëriñ Omar Diop Kooba la woola woon moom la woola woon Cheikh Issa keroog bi Cheikh Issa di dikk sëñ Omar Diop nee na dafa ñëw ba ci bunt bi daal di àgg suuf nee na mu ni ko wool ma ko mu agsi Cheikh dugg ci biir néeg bi dox tuuti daal di àggaat suuf ngir warmal sëñ bi ñetteel bi mu ni ko exil Cheikh Issa ñëw ba ay yéeram di laal mbubum sëriñ bi keroog sëriñ bi yëkkati na ñaari loxoom yu tedd teg ko ci mbagam ya wax ko fa wax joo xam wax dëgg ay teggin sax mooy ñu ñu di ko wax waaye na xam nañu na mu dem na mu demee ndax da am yoo xam boo koy wax day nuru gis sa bopp wala day nuru ak rëy te ñun yërewuñu ci loolu kon daal fa tabaarakallaahu ñu ngi sant bu baax di sant seen teewaay bi ak Pastef bi ngeen am ñëw di ñaan télé bii ngeen fii teewal yal na yàlla boole ko ci tele yi gën a yëkkatiku ci dëkk bi te lu ngeen ci def it yàlla barkeel ko waaye may leen ci ngërëmul Serigne Touba xanaa di jeexale rek fi ma tàmbalee woon ñaanal Cheikh Sidi Makhtar ñaanal sëñ Cheikh Abdou mi fi nekk ak ay rakam ñaanal doom yu tedd yi ñaanal seex yi nga xam ne ñoo àndaan ak Cheikh Issa di sant it sët yi am suñu initiative bu mag bii te mooy jàpp ni war magal jàllee war nañoo bu ñu santee sëñ Touba bu bis bi si war na ñoo dellu si waat ci pénc mi nga xam ne lu am ci Cheikh Issa lañ ko jëlee woon ñu jagleel ko ak ngoon goo xam ne dañ ko cee fàttaliku jàngataat ci ay jikkoom loolu am solo loo xam ne yàlla na yàlla barkeeloo wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi lii benn ponk la woon rek li nga xamante ne bii ak Cheikh ñoom ñoo ko amaloon Euh, di bis boo xamante ne bis bu am solo la waaye tamit gëstu yoo xamante ne bi jaare nañ ci potoxlu ci gëstu ci ki nga xamante ne moo di Cheikh Issa ak jaar-jaaram di sant nag mbooleem ñi nga xamante ne bii jàppandal nañ ñu liggéey bi rawatina Serigne Thierno Faye mi nga xam ne ñu àndaloon waaye di xamal ne am na yeneen pàcc ay waxtaan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii da ngeen mën a am lépp rek soxal bis boobu nga xamante ne bii ay bis gannaaw bu ñu màggalee Touba ba noppi lay doon ngir fàttaliku ci jaar-jaari jëmm ji sell jooju kon mbokk yi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen dig daje ëllëg ci beneen jataay bu soxal itam jaar-jaar yi mag ñu sell ñooñu rawatina ku mel ne Cheikh Issa Diène wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.